asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 4 janvier 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëy doore ko mel ni ki yëglikaay bi tey xëta mu njëkk daal fa mu xëy jublu mooy fa nga xam ne nii moom moo di ca géejawaay war ñu Balla Gaye numéro 2 nga xam ne moom mooy tête de file école de Balla Gaye mel ni ki nag yëglikaay bi at yi nga xam ne école de Balla Gaye génn nañ ko la mu dajale ci ay ndam ay defet yëglikaay bi xëy na tey ci am xayma daal di jukki ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag 30 victoire daal lañu indil 26 defet ñeenti niil ak la nga xam ne toll na ci ñetti année balance yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu 2017 jàpp 2018 moom yëglikaay bi ne ci ay victoire am nañ ca tollu ci 12 victoire ay défaite ñu am ca lu toll ci 12 défaite ak benn mat si niil yëg likaay bi ne na tamit ci jamono jooju ci saison booba Balla Gaye ñëw na wane ca boppam ba tey bu ñu continuer saison 2018 jàpp 2019 moom yëg likaay bi ne na école ne ni moom mooy six te mu taxaw muy 2019 jàpp 2020 yëglikaay bi xayma na ko ci boo xoolee sept victoire école ba am na ko ak huit défaites mu mel ne ki nag yëglikaay bi ci sunu bopp wala boog ci boppam xamal nañu ne nag nga xam ne moom mooy tête de file ba moom di Balla Gaye dañ ko confiné yëglekaay ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ndax saison boobu moom jotu caa wàcc cib géew dal di bëre sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki noonu ñaara ngi ñoo xam ne daal bëgg nañ ñu wàcc ci géew bi bëre muy bébé Saloum ak ka nga xam ne moom moo di Sunjata yëglekaay bi ne nag kay démarché boobu combat du kenn ku dul ki nga xam ne moom moo di Lay Njaay combat bii daal wala combat géant bii daal mu ngi koy démarché ngir bëgg jël bébé Saloum nag jox ko nga xam ne moom moo di Sunjata ba nekk ca jàmm gën waaye yëglekaay ba xam nañu ne daal bu fekkente ne bébé Saloum itam d'accordul itam daal am na plan B muy ka nga xam ne moo di l'an 2000 bu sab nekk ca Pikine ginnaaw raay ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi ka nga xam ne ni tamit am na combat moom yëglikaay bi dina ko dey wala boog mu ngi koy dànkaaf muy muranta bu Thiès digganteem ak Diène Kairé daal mel ni ki daal boo bëggee dégg dëgg moom la mu dugg ah loolu combat bu doy doy waar la moo tax yëglikaay bi daal jàpp na ni Modou dey fi mu nekk nii mu ngay joué lu mag a mag a mag a mag moom sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom moo jiite sport réew mi di la ministre des sports monsieur la mu xëy di xam ne daal wala la muy leeral daal jàpp na ne li nga xam ne ay formule yoo xam ne ni wala ay mbir yoo xam ne ni daal suñ ko tegee doxal ko maanaam saison bi des na ko mën a bëri te kenn du ci am moo xamub amateur la wala supporter wala promoteur wala mbër wala boo képp koo xam ne daal bokk nga ci làmb ji mataar ba moo xëy tey ci sunu làmb dina fa wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag CRC ba nga xam ne moo nekk ca Kaolack moom wala bokk ca Thiès ka nga xam ne nii daal moom moo di place bu sa Njaay ba ca cees daal fi mu nii daal daa mel ni waa CRC CRC ba moom dañoo pare ngir boycotté la nga xam ne ni moom moo di CRC ba bu fekkente ne yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ne ki noonu ba tey bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi mel ni ki nag palaasu Maysa Njaay booba daal am na ñoo xam ne daal wane nañ say ah, seen ay ambition muy Thierno Ndiaye ak Babacar Diop yëglikaay bi mu xëy ñëw tey dinu wax lu mel ni ki doon suñu làmb keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom muy double moteur bu rëbës yëglikaay bi ne na daal ginnaaw ay weer yoo xam ne nii wala boog lu toll ci weeru yàlla yoo xam ne def na ko fa nga xam ne moo doon ca Maroc di entraîner ka yokku dooleem daal yëglikaay bi xam nañu ne nag double moteur moom ñëw na ci réew mi daa mel ne waaye moom daal wàllu wiik looja moom fi mu nekk nii moom pare na ngir bu fi desee mu bëri ko diggante ba sa daal double moteur daa mel ni fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg moom pare na ngir defante bu jotee ñu seq ko moo xam huis clos lay doon wala du doon huis clos sunu làmb nu xëy wax lu mel ni ki noonu record ba tey ñëwal na fa nga xam ne tamit moom moo di ca école de Balla Gaye moom tamit daal bu bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi moom juróomi at ya la topp cinq yi nga xam ne génn nañ ko yëglikaay ba xayma ko lu toll ci cent combats cinquante trois victoires quarante cinq defet moom record loolu la xëy ñëw xamal na ko mel ni ki nag cinquante trois pour cent de réussite daal la yëglikaay bi jàpp ne moom la ñu am boo ko doon xayma tey yëglikaay bi record xëy ñëw xamal ñu lu mel ni ki noonu ba tey moom record ci booba itam ka nga xam ne moo ko jiite woon te yàlla def boog mu génn àddina wala boog mu sancoon ko muy Balla gay numéro un daal yëglikaay xëy na dinu xamal ne daal ki nga xam ne nii moom mooy remplacer Balla Gaye numéro jël place am loolu record xëy tey sampab laaj di ko laaj mel ni ki daal loo ci mën a dégg ak lu mën a xew nu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko te xare ko aljana moom baay Balla gay nduur waaye itam du ñàkk koo xam ne nii dina ko mën a remplacer ndax moo demee noonu ku fi nekk bés day ñëw nga jóge fi te boo fi jógee ak foo mën a toogee woon di du ñàkk yàlla di koo xam ne dana mën a def lu raw sax la nga defoon loolu mooy li nga xam ne nii moo am mbokki téléspectateurs yi maa ngi leen di ziarat leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax bonne heureuse année ah bonne heureuse année atum jàmm atum naataange atum mbégte atum xéewal 2021 yàlla nañ ko buur yàlla defal barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla moom loolu tëwu ko ndax moo ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen te moonu sàkk moonu fi indi kon nu ngi koy dégg suñu ay loxo di ko ñaan mu defal ot moo xam ne daal saxadatu daara ni lay doon barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mën na ko yàlla na ko def waaye di ko ñaanal tamit bépp doomu aadama ak bépp jullit yàlla nañu yàlla def daal ba 2021 bi moom xulle na raw yàlla na gën 2020 bi ñu génne ci ay ngëneel ak lépp ak xéewal waaw parce que itam ah 2020 bi moom comme ni ko ñëpp xamee rek lu metti la waaye loolu lépp du kenn ku dul suñu borom bi rek te itam loolu li ñu rek mooy ñun doomu aadama yi ne ci kaw suuf dafa am lu sëñ Cheikh Tidiane si waxoon dafa mel ni daal almaktum yàlla na yàlla yokk ay leeram taf ñu si barkeem maanaam daal ñun ñi ne ci kaw suuf am nañ responsabilité bu rëy rëy ci li nga xam ne nii moom mooy am ci kaw suuf ci ay yàqu-yàqu ba xëy na des fois yéene kon nag li na dina tax ñun ñu gën a defarwaat gën a yéenante jàmm gën a yéenante lu baax di jàppalante di dimbalante te yàlla tax koo xamal lu baax koo mën a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax koo mën a jàppale nga jàppale ko te yàlla tax te itam des fois xulle ñuy nëbbalante ay ñaawteef ndax weerante bi weerante bi ak defante bi loolu jaru ko ku nekk la nga doon yàlla la suñu joyal suñu borom bi la soob mu def la ko ak foo mën a nekk ak loo mënti yëngut la ca war nag mooy ñu maa ngi jéglu ñu ñaanal la yàlla loola nga nekk yàlla defal la ci réussite maanaam xol yi ñu fexe koo sellal ñu ko defee rek yaakaar na ne lu bëri dum jaaxal waaye xulle bu ma yéenee sama bopp jàmm lool ak xéewal ak afiya yow yéene la musiba damay sunal sama bopp mais du ma ko am wala même ko amee du ma jariñoo kon yàlla nañ dimbi daal buñ yéneente jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sénégal moom réewum la yàlla na yàlla yokk jàmm ji comme ni ko góor ga ca yoof yàlla na ko yàlla yërëm daan waxee ca émission wax sa xalaat si defem waaw di ñëw ak yéen ba tey rek ci yëglekaay yi waaye tey nag bala may sori sax faw ma ñëw ci ki ma solal tey gis nga piir bu rafet bii xulle sama rak sama xarit di sama lépp di Aram Ndiaye di doomu bawal dëkk fi ñuy wax tàllen ci moom moo ma solal lii yaa ngi dégg di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram di ko wax ne yàlla boo gis loo ragal yàlla boo gis loo ragal aram waaw yàlla na la yàlla aar sàmm la defal la ko defal ko sa njaboot defal ko bépp doomu aadama mais bég naa daal ci yow yàlla xam na ko gis nga tey li mu ma solal macha allah moo koy bégee bu baax di ko ñaanal di ñaanal famille yépp aram njaay waaw doomu tàllañ di profito ji jaal waa tàllañ tamit pa seeni fay bi nga génn àddina bërki dem dañu war ko ñaanal te yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana di nuyu waaw noonu la demee ah bu mu ñëwee nag yëglikaay bi école Balla Gaye ñetteet yi ñu génnee xule 26 victoire 26 défaite wala boog 30 victoire 26 défaites 4 nul 3 saison blanche sunu làmb ku xëy wax mu mel ni ki nag Balla Gaye moom ak lu mën a xew jamono yooyu ñett yi daa mel ni moom école ba gën na baax ci moom ndax boo xoolee am na ci ay ndax daan na ah, yaa ak yeneen ak yeneen def na fi nag année blanche yaa ngi dégg mooy ñu génn jotu koo bëri yaa ngi école boo xam ne tamit wax dëgg yàlla comme li ñuy wax rek ah, des fois affaire yi day yéeg des fois mu wàcc wax dëgg yàlla ya moom ci li ñu xam écurie Dakar sax moom école la moo njëkk ubbi comme école de mais dañ doon wax écurie Dakar mais école de Balla Gaye bi mu ubbee daa nekk école boo xam ne bi mu ñëwee vraiment dafa former ay champion defar ay xale yoo xam ne ni tey defe naa bu ñu doon xool école bu nekk numéro un moom la ñu koy tànn jox ko ndax loolu lu mu wane la ci ay résultats ndax ku génne Balla Gaye numéro 2 mu nekk roi des arènes les 2 Elton ah ñoom Youssou Ndour ak yeneen xale yoo xam ne ñoom ndigal ah ñoom ñëpp ay Baye Mandiaye doonte bëreetul ñoom Lamine tey mooy seen coach Lamine Gola ak yeneen yoo xam ne ñu ngi fa ay Sokosim macha allah defe naa kon foofu liggéey am na fa waaw tey daal yëg likaay bi ñëw na ci ñoom war ñu Balla Gaye numéro 2 mel ni ki tamit ba tey bu ñu continuer yëglikaay bi ñëw na ci Lay Ndiaye promoteur ba dëkk ci Gambaaw am na combat bu mu bëgg muy diggante suñet ak ki nga xam ne ni moom mooy bébé Saloum ah war na mën a nekk waaw war na mën a nekk donte nag bébé Saloum ci côté lamb bu ñu demee ci lamb ak diggante ak Sunjata am na diggante boo xam ne nii bébé Saloum jiitoon na ko waaye nag garab ci kaw lay fekkante ndax Sunjata daa xale moom mu bëgg la malgré que teglante na am na la parce la preuve mooy combat yi mu bëri ak défaite yi mu am boo ne amit combat bu neex la waaw loolu moom gis nañ ko Modou Anta ak Diène Kaïré mel ni ki yëglikaay bi da koy dànkaafu ne mu ngi joué guro maanaam daal ah mu du fa mu dugg ndax waaw loolu nag làmb la làmb moom moo mel noonu àddina sax pour man lépp kii la waaw mais nag mu doon te du mbër mu ndaw daa fekk na nag jël na xale boo xam ne am na fu mu bëgg a dem mu du itam comme li ñuy wax defe naa ne boo xoolee palmarès su mu doon anta wax dëgg yàlla dinga xam ne am na lu mu def ci làmb ndax 16 victoire xulle ak 4 défaites ah 16 victoire yombul ci làmb di mu doon te def na loolu kon la ma doon wax rek diggante ma Diène Kaïré moom moom maye sens loolu nag mooy làmb parce que Diène Kaïré tam xëy na def na lu war a tax mu doon te war a mën a ak moom loolu moo tax lii am am waaye combat la xam ne daal bu neex la ñuy ñaan rek ñu yegg ci ak jàmm ñu bëri ko que le meilleur bu ñu continuer ba tey Matar ba ah nee na dinañu xool ay formule yu ñuy def pour que saison bi maanaam daal ay meilleure formule yoo xam ne dina tax saison bi mën a mucc ay loolu moom dina am meilleure formule yi nag moom man de bu ma ci amoon xalaat bu ma koy jox monsieur le ministre benn lay doon maanaam bu fekkente ne dañ dañuy jël mesure barrière yi stade arène nationale war a def vingt quatre mille places ñu ne ah vingt quatre mille la war a def wala vingt deux mille places na onze mille dugg bu fekkente ni mille places la war a def ñu ne na cinq cent personnes dugg ñu am na ay bu ko defee loolu bokk na ci man Babacar loo xam ne dama koy joxe mais man daal li nga xam ne moom may xaw a jaaxal tudd daal mooy ñaari bëri kese ñu tëj làmb ji kenn du fa ne boobu moom dina xaw a doy waar waaw mais nag lu ci nekk rek comme moom ni mu ko waxee tout est possible lépp mën na ne nañ xool ni ñu waxtaane ba mbir jaar ci yoon rek ba tey kaw la wala boog Thiès xëccoo ba daa mel ni mu ngay commencé ci place may sa njaay ba ak ñaan rek ka gën ca raison ba yàlla na jël te bu jëlee yàlla na def lu raw la may sa njaay defoon loolu la mu njëkk a mooy pare na ngir bëri huis clos waaw parce ku lekkee wax tëdd pom mbër moom bu lekkee wax lu muy gis leen lu bëri kon daal li am solo mooy ñëw na war a bëri Queens euh, ñu ñuy suñu frère Baba Diaw moom mi tëgg boobu combat muy lamb record ñëw na ci moom tamit 5 ans yu mujj école de Balla Gaye 100 combats 53 victoires 45 défaites mu mel nii loolu tamit ah taux boo xoolee 50 50 53 pour cent de réussite ñu la ba tey moom record yemu ca ndax ñëw na ci boo xoolee père Balla Gaye Ndour mi leen doon tàggat te yàlla jël ko wala mu formé école ba yëg liggéey bi xëy na tey sa boobu ku koy remplacer mel ni ki nag loolu moom daaf defe naa moom père Balla Gaye ku formé ñu mel ni ñoom Balla Gaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa moom préparé woon na ku war a jël place am ko dañuy ñaan yàlla kay ka war a jël place yàlla na sut père Balla Gaye Ndour fan et yàlla na fa def lu raw la fa père Balla Gaye Ndour defal loolu lañ di parce que tamit école boo xam ne la boo xam ne marqué na empreinte am comme ni ko yeneen yi defee waaw di ko ñaanal moom moom moom mooy afiya mais suma soppe yi duma leen fàtte fan si club Babacar mention spéciale ndax ñoo xam ne boobu ba tey ñu may topp formé fan si club groupe whatsapp lépp ngir Babacar kon yéen grand lay yéen jiga yéen Pape Ndiaye yéen Mas yéen Cédric Baye Zal Paris yéen ñëpp du leen fàtte Asi Diagne noo ak sot ñoom Awa Diop tamit ci fan si club Equivox ak Babacar boobu tamit ñu nga fa ñoom Cissé Brésil ñoom Fadja ah depuis mbuur yéen ñëpp ñoom Arona Camara Adama Ndiaye su ma limee dinaa jum ñoom Ndongo Fall Mbacke Kébé Balla Gaye Italie sama sopp yi maanaam Dabaax Norvège fu ne nit a nga fa di ma bégee Seydou Côte d'Ivoire maa ngi leen di ñaanal si at bu bees bi yal na leen yàlla defal ndam waaye tamit di nuy sama soppe yi ne fii Sénégal yaa ngi dégg ñoom ñëpp maa ngi leen di bégee ku mel ni Dame borom VIP Shop ah ñoom ñëpp nekk Colobane maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax di nuyu tamit ki nga xam ne nii

borom cuuraay di marché asalem ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm yokkute ku si ne parce que ànd bi ay bu ñu àndee atum yàlla ah, jàmm rek am defalante lu baax rek am defe naa loolu lu yombul waxuma nag loo xam ne ay at la diire kon ñoom tuuti yaay Sarr ñoom xajiroos ñoom ñëpp duma ci fàtte kenn Fatma Fall fu ci waay mën a nekk Pape Diop depuis New York moom tam duma ko fàtte Abdoulaye Mbaye Bazoka fëgala ñoom tamit di ay champion ba nekk bitim réew ah ñoom ñëpp mbër yi ne à l'étranger maa ngi di ziar ku mel ni ki nga xam ne moom mooy euh, Cartouche moom tamit depuis France fu ci waay nekk daal jàppal ne kontaan na ci yow bu ma bu ma bëggee lim ñëpp fi laay fanaan xam naa ne mais ñëpp rek ñëpp kenn génnul maa ngi bëggee ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàppale Babacar comme Zoubu Garga Serigne Ndiour tout fàttewuma kenn yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xule di kontaan ci yow di kontaan ci groupe Equivox maa ngi ciy kontaan bu baax a baax parce yàlla yàggaguma fi de un mois laa fi defagu mais macha allah sant naa ci yàlla bu baax a baax parce que fekk naa fa ay nit yoo xam ne gu magga ki nga xam ne day làqutu ki ci eh, angal bi en commençant par moom dangay dégg maa koy ñaanal jàmm di wax ne moom vraiment am na esprit d'ouverture am na esprit de loolu dafa am solo maa ngi koy bu baax a baax di ñaanal ki nga xam ne mooy mooy DG bi Aline Badara Diouf moom tamit nekk ñoo xam ne daal maanaam ñun ñëpp dañuy partager liggéey bi hélas tamit ni nga xam ne moom lépp luy production moo ko fi ci kër gi maa ngi koy ñaanal jàmm Elas Diouf série Mamar yow it xulle di la ñaanal jàmm di ñaan yàlla may la soxna su baax di ñaanal ah Mamadou Saliou sëñ sa sëñ Saliou ah waaw sëñ Saliou maa ngi koy ñaanal ak rappeur ba nu mu tuddati Jili Der moom tam manqué nii lépp ci groupe bi la bokk Myriam Sow ñoom ñëpp ñu ngi xam lépp ci biir daal di wax ne que daal group bi daal yàlla na yàlla def mu màgg ba mel ni Bini Sport wala canal wala canal plus te am nañ ci yàqin ndax ay sénégalais ñoo ko moom te itam ñu ngi ci jéem li ñu man di nuyu képp ku fi ne Cheikhou Omar mi nga xam ne tamit moom laa fi fekk si muy suma frère di ko baax yàgg ñu yàgg daje ci milieu yi muy rafet moom tam manqué bégg depuis France ak soxnaam di Maam Lees képp ku fi nekk daal ci Equivox Babacar a jàmm di wax ne xulle loolu tey moo ñëwoon ci revue bi di jéglu bu baax ci guddal gi nag dafa fekk ne dañoo dugg ci 2020 moo tax ñu defe 2021 di moins moo tax ñu defe nii tey di ñaan yàlla Sénégal leen yàlla def jàmm mais di wax mention spéciale sama rak sama xarit Lamine Lamine Seck Lit TV kooku du ma ko mës a fàtte parce que la ñu liyee moo yàgg ak patron bi nga xam ne moom mooy sama patron tamit di bës di ñaan Sénégal leen fi yàlla def jàmm